tey moom nakkare ak tiis bu rëy moo daanu ci commune Kéréwan dans le département de médinal Yoro man la Boubacar Diallo maire de la commune de Kéréwan tey de dafa am sama benn euh, dëkk bu nekk ci biir commune kerewaan lu bu ñuy tudd Daaru Xuddus mu nekk ci à dix kilomètres de la commune lu mot juróom-ñaari fukki kër ak juróom lakk nañ fa loo xam ne dara génn fa jur gi lu mot presque ñaari fukki jur ay fas ay nag yep lakk nañ fa dund seen dugub bi ak seen gerte seen jiw yep ñoo lakk ak seen kër yi du yëre du dara tey lu mot juróom ñetti junni nit ñu ngi fanaan biti ñu ngi lancé appel pour état bi dimbale ñu ci ministère yi mboole ministère boo xam ne mun nañu dimbale surtout ci ministre de la femme ministre de l' ak yeneen ministère yoo xam ne mun nañ ñu jàppale vraiment ñu dimbale ñu ak bon volonté ak ONG ak kii ñu dimbale ñu suñu mbokk yi vraiment sonn nañu tey déjà amuñu fu ñuy fanaan du matelas du bagage du matériel agricole du jiw du dund du fas fas yi ñëpp dee nañu lu mot juróom-ñetti fukki eh, juróom ñaari fas dee nañ ci ay peer nag ñu doon béyee yëpp dundu ñu ngi lancé appel état bi dimbale ñu ci loolu lu gën a gaaw wasalaam jërëjëf